Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Monsieur Cheikh Ahmed Tidiane Youm. du PUR, qui est en même temps le représentant du président Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy au sein de la coalition Yewwi Askan Wi. Puisque c'est lui qui reçoit ses collègues leaders. Monsieur Youm, vous avez la parole. ana waxay waaw waaw merci merci merci ak la loolu kikitan kikitan kikitan ratakit ratatat watatatatat kekeket kekket merci merci beaucoup ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp ci seen tur ak seen sant di jiital nuyu bi euh, suñu capitaine Mame Cheikh Ahmadou Tidiane moom ak maam Babacar ak maam Cheikh Sarr ak ñoom soxna Fatima ñu ngi leen di nuyu bu baax bu ñu paree ñu nuyu suñu président bi nga xamante ne ni Serigne Moustapha si xëy na moom la ñu waroon jiital sax balaa ñuy jiital suñu capitaine waaye it moo ko fi toogalagum ñu ngi nuyu suñu mbokk leader yi yi nga xam ne ni dañuy jógee Dakar ñëw fekke jotaay bi nga xamante ni ni dafa am solo ñëw coloré ko ak solidarité coloré ko ak engagement parce que xam nañ ne li coalition bi mën a liggéey réew mi il faut ñu booloo nekk benn pour mu mën a nekk ñu ngi remercier aussi waa Tivaouane euh, damay commencer ci département bi communes yi ñu fi lim yëpp présenté candidat yi euh, di remercier aussi commune u Tivaouane bi nga xam ne ni ñoom ñoo ñu accueillir ci dans le cadre de la coalition ah, bu loolu weesoo nag lii ñu fi gis man damay dégg ñu ñuy wax ni euh, terrain wu sous-préfecture du ñëpp a ko ñeme sànju du ñëpp a ko ñeme engagé waaye foog naa ne coalition Yewwi Askan Wi ñeme na ko wane na dooleem ndax gis nañu gis nañu nit ñi tey ni ñu bare li muy wane moo di xam nañ ne coalition Yewwi Askan Wi moo leen mën a dimbale ba ñu jotaat seen dignité moo leen mën a dimbali ba ndaw yi nga xamante ni ni toll nañ ci jàng ñu war a dem jàngi ak xel mu dal ñoo leen war a dimbali ba nga xamante ne ni muy góor jigéen toll ci sëy wara a mën sëy ci dignité ak sérénité moo leen di war dimbali ba nga xamante ne ni muy ndaw góor jigéen wara a ut liggéey mën a am liggéey ci sérénité ba mëna a seeni famille donc coalition Yewwi Askan Wi moom dafa ñëw pour dimbali askan wi mu reprendre sa dignité te lii nii xam naa ne dina am ñoo xam ne nii tey duñu neew dina am ñoo xamante ne nii tey xam naa ne semaine yi ñu génn yépp nelawuñu waaye bésu tey bi guddik tey bi ñu def nuit blanche parce que ñu ngi ne ñuy wax ci olof dañuy tëñëx tëñëx yi xamuñu lu fi ñu war a teg seen tànk dañu ñoo digoon fast track waaye fi mu nekk nii faste crack lañu ñu jublal ndax lépp loo xamante ne ni tegoon nañ ko mi ngi màbb ndax seen jaaxle parce que gis nañ ne coalition Yewwi Askan Wi mi ngi ñëw dal ci seen kaw ak doole boo xamante ne ni mënuñ ko supporter te xam doole bi nga xamante ne nii ci la coalition as Yewwi Askan Wi war ñëwee dal ci seen doole moo tax ñuy wër ay fusible ut koo xamante ne nii danañ ko teg pour rekk bu coalition bi ñëwee ak doole ji rek moom du ko atteindre xëy na waaye dafa yëgul liggéey ji di riir ñoom ñëpp lañuy boole ramasser leen yóbbu leen géej pour bañ a guddal pour bañ a guddal dañuy jox kàddu gi suñu leader yi nga xam ne ni ñoom la ñu nekkal ci coalition askan wi di commencer par le doyen Habib si bu ñu paree ñu jox kàddu gi Déthié Fall jox soxna ay Mbodj honorable député monsieur Ahmed dara yeggale ci Ousmane Sonko autant ñu commencer par Djibril Diop ñu jox kàddu bi Jibril Diop.